man Ndiawar Diouf laa tudd quoi man maay secrétaire général euh, groupe euh, bokk ànd booloo bu marché central ñun ñoo ngi nekk côté Sam bi wax dëgg yàlla problème bi mooy ñun fi ñu nekkee jegewuñu tali jegewuñu trottoir maanaam fi ñu nekkee dañoo nekkoon ci TF 143 bi lañ koy tuddee jamonoy chemin de fer jamonoy chemin de fer TF 143 bi fi lañ nekkoon léegi nag dañu seetlu saa yu déguerpissement amee ñun lañ fiy jëlee bàyyi ñi nga xam ne ñoo nekk di encombré tali ak trottoir ñu encombré wuñ tali encombré wuñ trottoir maanaam dañoo nekkoon ci place yoo xamante ni ci marché Samb bi lañ nekkoon yoroon fi ay place yu baax doon liggéey léegi ñu toj cantine yi indi fi lii bi ñu ko fi indee tam dañoo waxoon ñun ñooy priorité ñu bàyyiñ ci biir léegi nag maanaam dafa am espace boo xam ne dafa nekk ci biir espace boobu yaakaar naa ñi nga xamante ne dañoo nekke si nekk ci cent TF 143 bi ñooñu war nañ leen mën a dugal foofu parce que loolu la ñu waxoon ba léegi gisuñu dara Nous nous ñun deuxièmement côté chemin d'affaires, bi ñi fa doon fay contrat depuis jamono ex SNCS la directeur bi fi dégg nañu la parce que le ku nekk fa nga nekk. na nga ñew tok ñu la contrat ngay fay xamna mom parce que suko ko war na xam nga saytul ñu eh, ñu ay contrat ñu ne di chemin d'affaires. Nous metti marché parce que problème moy luy dugg ci marché bi ñun dañuy bàyyi té dañu am structure bo xamanteni ni ñoo ngi boot plus de 100 et quelques personnes yo xamanteni ni ngi ci marché bi ñi ay père de famille lañ di daw di dundé té saa ñuy dàq ñun lañuy ñuy dàq loolu laa ci bëggono yok rek pour bàyyi président mu eggale li nga xamanteni mo moom moo ci def moom ci cantine yi nekk suñu ginnaw cantine yi nga xamanteni mo lañ fi nekk biñu ñu avant ñu tabax dañ ñoo waxoon ni ñu cantine su ngeen paré yéne priorité bon depuis monsieur le maire Lamine Diallo mom defoon nañ koy tab bi taala si laa tojee cantine monsieur le maire Lamine Diallo moom tojoon na su eh, bi ñu tojee cantine dafa ñu bindoon këyit ni ñoon i cantine loolu bi ñu ñëwee promoteur bi bi ñu ñëw wax ak ñun bi mu waxee ak ñun nee nañu cantine yi bon dinañ xool yéen yéenay priorité parce que yéen yéen ñoo ko jënd te ñun nag dañoo amuñu doolee jënd ko ci biir mu wooñu nañu fii espace bi yéen ñu nekkee côté bi nekkoon ci kanam cantine yéen lañ koy jox loolu ku doon ko dégg. Euh, Moustapha mooy promoteur bi moom moo ñu ko promettre woon boobu ba léegi ñu ngi ciy dox mais amuñ ci benn rendement jaaykatu jëne am nañ fa place jaaykatu légumes am nañ fa place ñun ñoo fa amul place. yéen ci lan ngeen yëngu. bon ñun ñoo nekk fii sidéem lépp loo xam ne yaa ngi koy wër sidéem buy di tax këriñ lépp mi ngi ci biir orange ak gerte tout lépp ñun xam nga ñun ñoo koy jaay ak jinjeer lépp ñun ñoo koy jaay te ñun dañoo yor structure boo xamante ne plus de cent et quelques personnes lañu boot ñoo xamante ay pères famille lañu. waaw donc loolu laa waxoon naa ko. fi ngeen daan jaay kon moo leen doon. ah. dañoo nekkoon dañoo nekkoon ci saam bi. biñ nekkee ci saam bi maanaam yoroon fa ay cantine biñ ko tojee te biñ ko toj maanaam dañoo soo xoolee contrat yi ñu yor chemin de fer moom ak ñii ñoo bokkoon ay contrat. Ah, chemin de moo moo ñu joxoon ay contrat moo ñu ko ex ñoo ñu joxoon ay contrat léegi biñ ko tojee ñoom dañoo waxoon ni léegi suñ tabaxee dinañ leen kon nuñ leen dugalee ci biir mais boobu ba léegi ñun ñoo toog amuñu kenn koo xamante ni mën nañoo wax ak moom. waaw wax ngeen maire Lamine Diallo nekkatu fi est-ce que seeti ngeen maire Birame Souleye bi fi nekk léegi. moom dani marché bi mënu cee wax dara tant que amul fenn fu mu ñu yóbbu. Ah, moo tax dëgg est-ce que du Lamine Diallo leen tooñ comme moo leen digoon loolu te nekkatu fi. waaw mais comme que nekku fi. Ah. mais l'État est une continuité. bon préfet wax nañoo préfet wax ah. moom trottoir la wax ak tali

parce que nous sommes autorités nga xamni ñom nek fi ak Ablaye suñ ci situation yi ñu parce que aussi tamit ñun li ñu mën moy places suñu ay place ñuy fay. mais til foncier bi nga wax ni mhm. da am borom de. dafa am borom ah. nenañu ah, am borom parce que bu ba ñun dañ fa doon fay ay eh, ay contrat doon fay chemin de doon chemin de donc su fekkee yow dañ au moins war nañ wax ni kat ah, yow diw toogal ne dinañ la wutal feneen fuñ la yóbbu xam nga lu ma gëmul ah maanaam yëkkat nit sànni ko pare utoo foo ko dugal quoi waaw waaw merci beaucoup ñaa ko waxtaan boobu amul quoi waaw léegi euh, préfet aussi toogu leen ak moom non moom parce que préfet ku bees la après dinañ ko gisi mais li ci des moom damay bàyyi ak sama président moom eggale ko quoi Kër Balde man maa nekk ci kanamu ñii ñëpp ñu nga xam ne mooy collectif bi ñu teg collectif bi nu mu tudd bi moom mooy ànd booloo mhm. nekk fii ci marché Sam ku ne xam na ni fukki fan a ngi nii bi ñu yëkkatee fii ak léegi ñi nekk ay borom kër nekk ay père de famille nekk ay responsable di boole seen i ak seen i daqaar amul kenn koo xam ne jàppale nga ñu ci dara luñ ci mënti am di ko jënd ay bagage ñun ñoo koy def suñu dooley bopp ñii di daw dépense ñii di dimbali seen i jëkkër ñii di fay seen i jàngi école yi doom buñ la yëkkatee fukki fan nag nga toog liggéeyoo defoo dara ak dëkk bi ni mu méttee xam nga ni wax dëgg yàlla loo dépense woo dootoo ko am. mais fan la yëkkate xanaa dafa fekk ne xam nga bu fekkee préfet dafa ñëw daana moom trottoir la soxla ak tali bi ñun nekkuñu ci trottoir bi mais bi ñuy yëkkati danoo yëkkati ñëpp. parce que fii ñun ngi nekk fii alignement bi yëpp ñun ñoo parce que préfet dañ ne lépp lu nekk ci ginnaaw weñ yi loolu foofu la trottoir bi yam foofu nan leen bàyyi mais après par la suite la ñu ñun ñëpp te wax dëgg yàlla ku sa tuñu kaw dagg sa ëpp law jeex te ñii kat wax dëgg yàlla bu buñ leen dimbaliwul dañ leen a war a gën a sax dooleel ndax gaal gaa ngi fi dugguñu ci Nicaragua a ngi fa jaaruñu fi parce que ñun li ñu gëm mooy réew mi dañ ko war a liggéey te teraanga doomu aadama mooy liggéey te bu nekkee Sénégal dafa toll ci en de développement ñii fi nekk ak akus néew gëm ni Sénégal ñun ñoo ko war a defar ñun ñoo war a boole suñuy déem ak suñuy Dakar pour jëmale ko kanam di daan seen doole teg seen i taabal teg seen i saako di di saam di jaay ñu dañ leen a war a mën a jàppale. yéen coow marché Sam ak marché central du tey dafa mel yeen da len boddi ci biir marché bi dal ana seen jitu marché lolu deug la parce que parce que xam nga lu mel non lu mel ni man dama ci bëggona dik parce que le délégué du marché muy Thierno Sis bu fekke da nga njaboté ñepp lu mel ni am don fukki fan ak ni teggu fi tankam lijeentiwul te am na ño xamne fu len laalé ci marché bi mom dina jog ñun nak xeyna ñun ño amul bajjan motax waye nak maam gatt na me ci jur gi la bok lu mu metti metti waron fe mëna ñew le maire biram sulay job fi domaine am la ñun njabotam lan waron na fee mën taxaw ne massawuñu jàppale ñu laaj ñu lan moy suñu soxla parce que amna marché bu bes bu ni tabax à hauteur de 2 milliards kenn ku ci nek sa part amna fa wa lujum amna fa wa jeun amna fa ñepp amna fa mais ñun ñi nga xamne ñun ñoo jaay ay sidem di jaay ay kërign di jaay ay sac di jaay lu nek amuñu fa dara te tax wax deug yalla yag nañ ci marché mais fukki fan yi bi leen nan ngeen dundé ñu pour euh, euh, jaay mais maire bi mi ngi ni ay fas lay jaay fi ne ni fas ñaar fukk kenn ku ci nekk nanga nga mën a jàppee na nga nii nga mën a jàppalee sa bopp nga jàppale ñu leneen ci des mooy ñun ñooy jàppalante suñu biir am na ci ñoo xamante ni si tey am na ci ñoo xamante ni si tey parce que doole yëmul ñun ñooy jàppalante suñu biir xool nan la ñuy def ba dund mais loo ci mënti dégg yëf yi metti na ñi ngi ñaan nag ki nga xam ne moom mooy kilifa dëkk bi muy le gouverneur nga xam ne jot na fee jaar nekkoon préfet liggéey fi liggéey bu am solo muy bàyyi ci man di alaaji Amadou Omar Balde ñu ngi koy woo mu jàppale ñu ci li wa mais mais nangu ngeen ak wa Thiès yëpp kone marché Sam mom, mooy góomu Thiès. ah hôpital baa ngi fi, base ngi fi école yi mais fi kenn mënu fi jaar. xam nga ñun waxu ñu nekk ci talibi ñun ñun ñu sax ci trottoir ñun bu nekkon ci tali déedéet ñun trottoir bi sax ñu ñun bu nekkon ci tali dañuy xam ne ñun fi ñu nekk du yoon deug la secteur informel la ñu nekk mais fi ñu nekk xam na li ak ak yelleef parce que nit ñi dañoo wara jaar ambulance dafa wara jaar école labbe bi sen bi ci dañoo wara jaar kon ñun duñu occuper trottoir boo xoolee weñ yi fi mu nekk ñun fi ginnaaw fi nu nekk da nga naan nii nan la fi nit mën a toogee sax di liggéey mais lool lépp li ko waral mooy njaboot kon nan ñu jàppale nan ñu dimbali. léegi ngeen fan ngeen bëgg ñu jàppale bëgg mooy marché bi nga xam ne ñu ngi koy defar bi nekk jasab nga xam ne ñun amuñu ci lenn loo xam ne ñun lii suñu cër la nan ñu ci dimbali fii ci biir espace bi ñu doon wax aussi tamit nan ñu ci dimbali parce que ñii fi nekk nii ay sénégalais lan ñii fi nekk nii ay borom kër lan ay njaboot lan ñii bootu seen ginaaw dafa bari kon nan ñu jàppale nan ñu taxaw autorités yi fi nekk nag ñoom ñëpp ñu ngi leen di woo. waaw mais mais autorité yooyu da ngeen di sol seen daal dem seeti leen bu ngeen toogee si mbedd yi aussi. waaw xam nga xam nga fii Sénégal ku ne xam na ne gis autorité yombul. le ministre docteur Ndiaye. le ministre yéen leen fi teg bi. le ministre docteur Ndiaye koy sant di ko gërëm parce que bi ñu ko woowee. woo directeur de cabinet ñoo mettre en rapport ak moom moom mu mettre ñu rapport ak directeur semaine d'affaires bi ñu fa demee yàlla dogal moom mu dem Tamba mujj ñoo gisante ba far lii am kon loolu aussi tamit ñu ngi koy ñaanaat mu recevoir ñu déglu ñu wax ko li nga xam mom moy suñu sunu yitte maire biram soulay mo ndey bi ligi mom mo moy responsable fi marché bi de loolu dëgg la xam nga le maire biram soulay mom moy responsable mais fi xam nga préfet mo doon def déguerpissement bi euh, maire bi aussi amna ci cieur mais xam nga nit wax rek la man ñaan rek la man ñun xeexuñu xulowuñu taaluñu tojuñu ay responsable ñofi nek ay kilifa ñofi nek dañ leen ñaan parce que nit ki boko dalalul mëno ko déglu danoo bëgg ñu dalal ñu déglu ñu parce que nit amul luddul yaakar yàlla sax bi mu bëggee ñuy dugg àjjana dañu jaamu leen ma ma dig leen àjjana kon yaakaar nit da am à chaque fois réew mi nag boo xasee ba ñàkk yaakaar leneen ak leneen rek ngay dugg gis ngeen solution solution bi aw gis nañ ko mooy li la wax mooy ñaar moo ci nekk fii am na espace bu yaat bu fi nekk semaine d'affaires aussi tamit ñu ngi leen sant di leen gërëm parce que bi ñu yëkkatee fii foofu ñu dugal suñu bagage toog fa di fa jaay ñoom ñoo ñu yaatalal foofu ñoom ñoo ñu xëccal foofu ñu daal fay toog loolu aussi espace la bu ñu mënee dimbali nan ñu dimbali fii ñu toogoon nii nga xam ne ci ginnaaw weñ ñi la nekk jotowu nag place yi dara mën nañ ñu fee bàyyi ñu toog balde rond point sabi am na ñoo xam ne kaw tali bi la ñuy jaayee de nañu wax ne waa xam nga ñun ah. ay responsable la xam nga ñun bu nekkoon ci tali Babacar dama naa la ñun kat ci tali bi la nekk mais ñun nekkuñu ci tali te wan naa la fi nu nekk kenn waxul nit ñi nan teg ci tali parce que tali pour jaay la donte nag Thiès gii am na ñoo xam ne ñu ci digg tali bi nag baara tali ba di fa jaay ñu bàyyi leen fa bu dëgg dee dëgg boo duggee Petersen gii loolu amul trottoir ab tali la ñu teg fa di jaay ñun fa mën a bàyyee ñooñu nag dañuy ñun ñaaw yaay dong moom moo ko waral li ma la wax nag moo ci nekk puso tuñu kaw dagg sab ëppalaw jeex ay kilifa ay borom kër lan nan ñu jàppale rek te yàlla tax loolu rek leen bëgg liggéey leen bëgg ku ñu cadre leen bëgg marché yaa ngi nii pare na espace baa ngi fii ci biir pare na nan ñu ci dugal nan ñu ci jàppale ni ñu ci joxee jën yi jox ci waa lujum yi noonu lañ ci amee part de responsable kon nan ñu ci jox asalaamaaleykum fii non fii li fi nekk moom pili de cent xam nga marché kenn ku ci nekk boo xoolee ñiy jaay ay Dakar ay ay ak yooyu boo xoolee ñoo ëpp ci marché bi mais kenn ku ci nekk cadre nan la ba nga xam ni doo jotee ak tali bi dara ñeneen ñi nga xam nag dañuy ñëw teg ci tali bi ñooñu mënalul leen dara. est-ce que a ngi fay juuti mairie waaw dañuy fay juuti waaw moo tax ñu woo leen pour wax ak ñoom fii lañ ko mën a waxee kat parce que mënuñoo yuuxoo fenn ndax gars yi pour nga gis leen problème la donc fi rek lan mën jaar pour mën leena wo pour ñu mën ñoo jappalé dalal ñu ñun dal loolu lañu bëgg dañu bëgg dal ñu jappalé ñu jappalé suñu yaay yi nga xamni wax dëgg yalla ko fi gis lu mu tuuti tuuti tuuti limu gaddu ci kërëm bu la ko waxon wallahi azim da nga naan ki nan la mëna liggéey li kon nak nañu dimbali ñun financement yi ci am déra nga fi fonds yi ba nga fi lepp nga fi mais ñun jappalé wuñu te nak président mo né un Sénégal pour tous un Sénégal de tous te ñun nak yaakaar na ni fi lañ bok te réew mi nak alal dafay commencé di dugg te ay nit a ngi génn ay nit a ngi fiy dugg ñun nag fii lañ fas yéenee des ndax li ñu gën a importance ci ñun mooy sunu njaboot ñu bëgg leen a teral te fii lañ ko yaakaaree ak autorité yëpp nag Ablaye Dieye ak ñoom Massalek ñoom maire Babacar Diop maire Birame Souley ñoom ñëpp nan ñu jàppale nan ñu taxaw waaye gouverneur ñu ngi koy ñaan mu jàppale ñu mook préfet ak DG bi nga xam ne moom mooy DG semaine de fer asalaamaaleykum wa rahmatullah